mbéy ba benn nit ñàkk ci bakkenam benn woto boo xam ne chauffeur ba mënatu ko woon a téye moom moo dem ba fël ñetti nit kenn ki ci gaañu ñu ne ab benn soxna la bu xaw a màgget sax ñeneen ñaar ñam ay gaañu gaañu yu méttee métti yóbbu nañ leen ca centre de santé ba nekk ca Bombay gendarmerie mi ci ubbi ab l'enquête itam teg na loxo dawalkatu woto boobule mu di ay xibaar yu tukkee ci sunu ndaw la ñu fa toogal di euh, Babacar Diouf. tey jile lu yëglekaay yu bari xëyee tey euh, muy ñaari gendarme yu réer mër kenn ki di Didier Badji keneen ki Fulbert somb ñoom nekk ci euh, agent renseignement ñoom samedi ba léegi euh, lañu ñu réer maire bu Kafountine di dëkk ba ñu fekk baax moom mi ngi xamle ni seeni njaboot ci njàqare bu metti lañu nekk jamono ji ba tax na ñu ngi ñaax kilifa yi ñu dellu ci seen i yëngu-yëngu David Diatta moom mooy maire bu Kafountine dañ koy déglu ak Lamine Ba. kii di adjudant chef gendarmerie te mu tudd Didier Badji ak euh, sergent Fulbert Sambou réer nañu jamono ji kenn xamul fan lañ nekk kenn xamul si lu ñu nekk ñoom ñaar nag ñu doon doomi il bi bi ñuy wax ñoomun ñoomun nekk ci commune Kafountine ba tax na may yëkkati suma kàddu en tant que maire commune Kafountine en tant que mbokk ñooñu pour euh, wane euh, jaaxle bi nga xam ne fi mu toll nii famille bi jaaxle na ko jaaxle bi nga xam ne fi mu toll nii population commune Kafountine yëpp jaaxle nañu ci li dal seen ñaari doom yooyu. fi mu toll nii suñu mbëbët lenn kese la mooy ñu fexe ba gis leen ci jàmm ak euh, salaam wane jaaxle boobu wane mbëbët boobu. Euh, maa ngi lancé appel ñu wëyal recherche yi gën ko yokk. ndaxte ñii nga xam ne tey euh, réer nañu ba kenn xamul ci li ñu nekk li ñu mën a seede ci ñoom mooy ay nit ñu la ñoo xam ne nit ñu jub nit ñu dëggu nit ñu xamul caaxaan nit ñu fonk seen liggéey ñu des foofu ca bët saalumu réew mi wax ci leneen ak armée bi liggéey bañ fay amal muy fexe ba lépp lu fay ay toolu yàmba ñu fexe ba dindi ko jamono ji rawatina ca bët gànnaar bu Sindian am na benn opération bu ñu fay amal di lakk tool yi ñaari fan a ngi ni ñu koy def waaye nag dafa am ay nit yu yore